dernière question def nga trois mandats. oui. da ngay présenté woon. Euh, naa def doo xajal gars yi danaa def six mandats <laughs> comme ça coow li bañ a am. <laughs> mais mandat mandat 2009 ba tey yaa ngi nekk maire plateau. est-ce que amal naa njëriñ waa plateau ou pas. 2009 est-ce que jëlee naa le le. réélu en 2014 encore réélu en 2009 est-ce que jëlee naa le. euh, le budget du plateau à huit cent et million millions un milliard yóbbu ko à treize milliards et quelques est-ce que plateau bi ñu bi ñu wax ni tey dans ses avoirs propres yóbbu mu ko à plus de quinze milliards ce plateau aujourd'hui capable de faire des investissements de plusieurs milliards ce plateau qui commence à avoir du patrimoine propre important ce plateau aujourd'hui où c'est la seule commune au Sénégal où toute sa population a une couverture médicale à 80% dans les meilleurs hôpitaux de ce Sénégal Principal euh, Dantec balaa ñu koy toj Fann IHO et euh, est-ce où des enfants ne payent pas ne payent rien leur, leur fourniture et cetera je peux en citer est-ce que amal naa njëriñ kii boobu léegi est-ce que maa ngi leen di yaxanal seen alal ou pas parce que le poste mais c'est pas ce qui est important pour moi c'est ce qu'on est train de faire. non au profit de cette population. bu la population yi porter seen confiance alors que yaa ngi nekk ci ci ci opposition. Euh, porté waat la seen confiance en 2014 vous n'aviez pas des des des, des fonctions euh, les fonctions ministérielles que vous avez aujourd'hui defaat ko 2022 ça veut dire que xëy na ñoom gis nañ njëriñ ci ci ci ci ci ci li ngay. est-ce xam nga fii man am naa am naa maire boo xam ne il est maire depuis 96. Amar <laughs> tudduma kenn mais. parce que a la confiance de sa population. am na njëriñ population mais dafa jot nag ngeen wut ay ay ay successeurs préparer des gens. mais moi ma ma mairie aujourd'hui on dira Alioune maire mais ma mairie aujourd'hui c'est mes compagnons. man de benn entorse laa nga def mooy bi ngay tuddee Macky Sall yoon bi. Euh, amagoo délibération conseil municipal sax rek dem. def waaw. dama organiser ce. jour-là j'ai lu la délibération. approuvée par le représentant de l'État. oui mais oui mais da nga accélérer procédure bi après parce que les gens en ont parlé. non non non non non ils vous ont ah? ils vous ont trompé. ils nous ont trompé moi je fais jamais xanaa may nelaw di ko def waaye ma def loo xam ne le conseil a délibéré souverainement a voté quasiment à l'unanimité parce que ñaar ñoo ko voté dans tout le conseil ce le président n'était ni impliqué ni ne le savait pas président bi ma ko yëgal waxtaan ma ak moom dama tàllal ko benn chemise il y avait la délibération approuvée du représentant de l'État dedans et la cérémonie qu'on a faite tu sais qu'est-ce que je visais le plus mm. c'était cette validation populaire les populations qui viennent c'est pas une décision simplement du conseil tous nos kilifa nos dignitaires étaient là présents notre population est ma massivement sortie loolu moo doon sabu en tout cas et ma leen ciy remercier parce que c'est quand même euh, un engagement fort à nos côtés donc du caagi ñu def ba pare dem rattraper affaire non loolu ku la ko wax da lay nax nous on fonctionne pas comme ça la mairie du Plateau et je vous disais tout à l'heure que moi je fier aujourd'hui cette mairie boo xëyee le matin c'est mes jeunes yi ma àndaloon dem ñoom ñoo fay responsable ñooy wax ak yow. kañ moi j'ai pas de fixation. puisque d'accord ak Barthélémy ci démarche Bar sama rakk la. waaw ah, mais d'accord ak moom. <laughs> non dama dama koy dama koy dama koy dama koy niit pour muy bën a éviter yenn yi parce que eh, xam naa ne tôt boo ko defee ci yow lay këpp rek. Ah. te jàmm laa ko yéene. xam naa ni nag bon voilà àdduna day dox mais dafa am fu ñu jaar boo xam ne ba léegi. saa yi ma ñu waxee dama naan sama rakkal foofu laay yem. mais parfois nga critiqué ko de. ah non politique de moom moom bu taxee moom mi campagne ñëw sama suñu suñu samay gox wax lu ko neex <laughs> wax lu ko ge te man dem naa euh, commune am laa demee fa di waxtaan lu baax rek laa doon wax. <laughs> Aliou Ndeye dama yónnee laaj est-ce que nekkul këram dama naroon jaar këram mais après ñëw ne ma nekku fa. <laughs> Aliou euh, merci. mais c'est moi en tout cas c'était pas évident parce que nous avons été surpris par cette décision quand même comme vous dites inédite du conseil constitutionnel mais nous en prenons acte et nous allons voir en toute responsabilité nan la ñuy fexe euh, en nous donnant davantage euh, la mais ñu déglonte du ñu ay ennemis du ñu ay ennemis ma boo xoolee damay tooñ ku ma fi lim rek dama lay xaw a ñàgg parce que dans les réseaux damay dugg seen i page di leen tooñ kon xam nga du caagin eh, yàq leen wala leneen dama leen di tooñ di bëgg quand ñu am yenn réflexe yi xam ne Sénégal bi moo ñu moo nekk suñu kaw ñun ñëpp c'est ça qu'il faut retenir à chaque jour